Diamalahi Evans. ay tomb rek ci mankumandoo yi waaye lépp nag mënoo koo wax ci ay bii waaye danañ si joxe ay orientation yoo xamante ni ku ko dégg di nga a xam à peu soxna si mooy kat waaye nag bu la ko jaralee nag nga ñëw sa journée ba nga tudd orateur yi nga xam ni ñoo fay taxaw. di wax ak mbooloo mi ak sëriñ bi nga xam ni mooy tëj journée Mame Coumba Ndoye bés bu ñu jëm rek ci 16 ak 17 février mu ngi suñu kanam ñaari fan ñett rek fi dox muy bés boo xamante ne dañu ca wara am ay jàngat wara am aussi lu nuy roy lenn ci ay jikkoom jikku kañ jikku soxna maam Kumba Ndooy definam waxinam jëfinam aw doxinam melokaanam encore ak sellate gi nga xam ni yàlla dogaloon mu nekkoon ci moom farlu it su faratay suñu borom ak sunnas Seydina Muhammad alayhi wa salam. soxna sosu nak dafa am ak juddu un goudou. ñu ne nga ban jamono ñu ne 1810 mu doyee en 1810 xam nga dina ñu mu ngi tel jour tel mois telle année ñom ñepp mag ñu fi fekk ñëpp boo vérifier seen carte d'identité yaa ngi fay fekk nez vert nez vert raison pour laquelle maam Koumba lii ñu fi mag ñu bàyyi mooy 1810 la gane àddina réellement te boo toppee historique bi ak li xew après ab juddoom da nga xam ne maam Koumba Ndoye mënul judd lu dul 1810 si wàllu xayma ak natt ak bis bi nga xam ne li ko diggal mu andi ko ci kaw suuf mooy alayhi salaatu wasalaam di nga xam ne maam Coumba Ndoye mënul judd lu mooy 1810 de par des jeux de calcul aussi ndax chiffres yi dañuy wax mu ñëw 1810 génn àddina 1883. si ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru rajab yaakaar naa ni bokki Sénégal yi yëpp dégg nañu xew-xewu gas kazu rajab kazu rajab bi nga xam ni suñu bokk yi murit yi ñu ngi koy màggal ci kaw juddu suñu maam Falilu al Fadilu Mbakke si la gane àddina Selon maam nag kumba yaay limaamu si kazu rajab si ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si le Genne àdduna en 1883 donc soo xoolee 1810 1883 tu verras que maam kumba ndoy dudd de juróom-ñaar fukki at ak il bi maintenant 73 ans Dundelo. de yàlla mu ngi dogal doomam ji nga xam ni moo andi entité bii nga xam ni ci diine moom la ñuy wax kuréel layeen muy maam seen alimaam alayhi salaatu wasalaam du doomam du tedd doo xam ni laata muy gane àdduna moom tànnoon na xeet bi muy wàcc tànnoon na yaay ji koy jur moom moom si naan imaam alayhi salaatu wasalaam leeru kese la danaay faral di wax sama waxtaan ne maam li maam keroog bi mu juddoo mënoon naa tox dem jëmm jëmm la ju mat sëkk ndax laata muy wàcc soxna si leer la nekkoon di jëmm ju bi ma ñëwee ci moom leer ju dugg sunu maam ku ma doy mu juddu dama wax ne keroog bu mu juddoo

si deuxième mission bi je suis si maam Coumba Ndoye damaa wax ne que ba mu juddoo mënoon naa dox rek dem si bu ngeen déggee samay wax ndax dund na si ay séquence yoo mais booba mu ngi leer gaa ngi ci ci biir soxna si muy jëflanteeg moom si kaw suuf te si kaw suuf mais complicité bi nga xam ne dox na diggante Sénégal maam wax maam ku mu dee mu soxna su am solo soxna soo xamee ne mënul nekk nitu neen non maam ku mu dee mënul nekk nitu neen nit la ak dara am na lu yàlla defoon ci moom te li yàlla defoon ci moom lii tax mu xam ko moom doom doomam ji mu jur muy limaam moom wax yaayam li mu doon moom moo wax ne et puis sax jaaru si tur ba ba muy wax ak sunu maam daw di ko déey li nar a xew daf ko wax ne sunu borom daf maa wal biig ci guddi fàttu wàllu wu mag wàllu wu yéeme booba mënoon na ko wax ne sama way jur ku ma looy waaye yow sama doomu nijaay maa ngi lay dénk di la xamal ne ginnaaw faatu wàllu yuwoo te te maam dawul sax am na lu ko jaaxal si boobu jamono wàllu yu góor sax jafe waxatuma laa wàllu yu wu jigéen waaye lay nag ah wàllu yu wàllu yu wu jigéen la de waaye ginnaaw ak faatoom dina am lu xew yàlla mu ngi dogal ci ñaar fukki fan juróom-ñaar yooyu muy Kazu Rajab ma ko mu doy mu nelaw ci muy bésub àllarba dañu caa teg alxames teg ci ajjuma teg ci samedi dimanche benn fanub Shaabaan si le mam seen al imaamu alayhi salaatu wa salaam woote wooteem bii ngeen di dégg ajiboo daaxelahi yaa marsalal jinna wal ins inni rasulillahi ilaykum mun a tub mu ne lu ngeen fu deeti jàng sooro yay na léebu olof la woon bu yàgg tey feeñ na ñu ne àllaaxira su amee jàmm kumbaa fa demoon àllaaxira man ni daan nañu ne àllaaxira su amee jàmm kumbaa fa demoon quest que ça veut dire kumba day génn àddina rek li maa jàmm jeex su fekkee dégg ngeen waxu olof bi may wax